Rewmi 24 TV mi moki mbokk yi yéen a ko gisandoonu kooku amadou bala mooy candidat wu benn bokk yaakaar bi moom la ñu sonkorisé di nii encore eh, moom fu mu dem rek ña ngi koy yuuxu sonko sonko mi ngoog ànd ak farba ak ay ñoñam waaye daal ndaw ñi bàyyiwuñ leen benn yoon yéen a ngi dégg noonu ñu ngi leen di yuuxu sonko sonko kon daal mu mel ne candidat wu benn bokk yaakaar bi rek sonkorisation bi moom daal dina koy sàppi ndax bu ñu xoolee rek eh, fépp fu mu dem ci sénégal lañ koy wax mooy sonko sonko sonko libéré sonko mu mel ne loolu rek ñoom saa su ne askan bi loolu lañ leen di wax kon du ñu li ñu bëgg rek mooy ñu rek ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko kon boo Amadou Ba mi ngoog ginnaaw ba waa Benno Bokk Yaakaar génn rek daal di koy samp rek ne mooy seen euh, mbër ci élection présidentielle 2024 yi mi ngoo ko moom mii di candidat wu Yaakaar bi daal fépp fu mu dem rek moom dañ koy sonkorisé Sonko Sonko Sonko bu dul jeex saa su ne moom loolu lay dégg moom mii di Amadou Ba tombé ak tey jii rek nekk 23 euh, novembre 2023 kon bokk Amadou Ba daal dinañ koy sonkorisé waat encore fi ñu wax ak yéen